publicité yi bari na wax ji bari na ci internet bi ba kenn xamatul garab gu baax ak bi gën mbooleem garab seen kilifaa ngi nii bii mooy àndala buri góor gi nga xam ne da am problème yi taxawal wala nga taxawal du dëgër wala nga taxawal di gaaw a daanu àndala moo koy faj. nag buntu kër Papa Sow ci ambiance beeg yooyu ñu laal laaj na ngeen def sëñ ñu ngi leen di ziar. Mhm. waajee combat bi. ah doomu waaj lu am doole. billaay Papa Sow mooy puso machine bi da nga koy xam nekk dëgg la si affaire bi Papa Sow la tous dërëm ndax ma ne benn jooy la koy jooy barki alquran dañuy fete ndeyam fete fete Papa Kassé tous Papa Kassé ñun waxuñ ci teew ci tax xaaral la feebar te ñu war dal ba est-ce que duñu may ñu demee filmé jël lépp mën nañ ñëw taxaw noonu jël lépp mën nañ ñëw taxaw noonu jël lépp jël leen wala lañ koy parce que gars yi dañ nangu gars yi jël fii ana gars yi ana gars yi

ngeen ko gisee ambiance ñoo ngi nii ci buntu kër Papa Sow di ko xaar mu génn ambiance baa ngi nii nag xale yaa ngi nii di waaj combat bi. waaw waaw waaw ah, boo seetee dañ koy may chance rek waaw parce que ñun ñooy favori bu mu toll nii ah waaw te moom mooy ñëw di wut si waaw moo ñu fekk ci yoon bi daal. waaw kon yaakaar ngeen ne war di ngeen mën a am ndam ci kaw Papa. ah waaw yokk ci ndam yi ñu daan am. Hmm. waaw mais du adversaire bu ndaw de. ah du adversaire bu ndaw. ah fii la ñu fekk de. daara am ba fekk suñu de kon ñun lan la ñuy doon. ah, ah yéen tamit doy adversaire magum jëmm la ñuy doon ok. Ah, waaw jërëjëf. ayca. sëñ bi ñu ngi lay ni jaar nañ. naka ngeen di bi. waaw combat bi comme ni ñu waajee yeneen combat yi rek waaw Papa moom li mu war a def na ko di ko ñaan suñu borom mu may ko ndam daan fi jël bu rëy day dellu werante loolu ak loolu kese la quoi parce que Papa moom vraiment pare na quoi voilà loolu la. kon yaakaar ngeen tey ndam li dina fanaan si. non non non ndam si day day fanaan si parcelle tey incha allah waaw. non fi tamit mbooloo mi bëri rek mais ma commencé bu ñu ko bu ñu doon teg qualité benn par benn suñu naar bokkuñ dara mais nag am na loo xam suñu borom moo ko may loolu muy mbooloo moo naa bëri ak ñëpp loolu bu bu bu bëri Papa Sow mais ñooy naan seeni qualité sax bokkuñu qualité a kii ci violence beeg yooyu. non violence bi moom suñu côté moom wax dëgg yàlla xanaa ñoom seen côté ñoom la wax waaye parcelle moom ñëpp xam nañ ne moom ñëpp yar la ñu xam daal muy combat bi bu chaque jour combat amul amul amul benn boo si ba tey parcelle dañuy def violence non non amu ci amu ci non non voilà. Eh, jaajëf eh, jaajëf eh, fay. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di ziar lan nga ci Papa Sow. lan nga sama lépp la sama idole la rek waaw. noo ngi leen di waajalee bi. combat ah ni ñu ko doon waajalee rek parce que entraînement bi ni ñu ci war yàlla nag mooy may ndam ñu yàlla yàlla yàlla may ndam yaakaar nga bu taxawee dëggal boppam war na mën a daan si bon combat du yàgg parce que papa ku ko xam-xam ne borom xam-xam la quoi parce que papa dafa entraînement ku ko xam. xam ne combat bi du yàgg man si sama gis-gis arbitre bu nekk it bi dafa war a jeex waaw. maa xeeboo leen seen adversaire du mbër bu ndaw de. non xeebuñu si tax mais boo xamee Papa nga xam ne ndaanaan la ku seetaan ay combat xam ne kii ndaanaan la waaw loolu rek la mais du keesoo dañoo xeeb si tax du leneen mais Papa moom lu muy bëri xëju si si tax waaw. boo amee conseil yoo leen di jox ñi nga xam ne ñoo ngi leen di topp nii ci regroupement bi te làmb fan yi dafa bëri violence et tout. di wax lépp rek parce que làmb dafa métti waaw xam nga bële waajal nañ ko gaa yi yàq combat bi gënaluñu woon parce que yàlla moom mooy dogal mais bii paa moom xam nag lu amoon du boobu du am si bii ñu ngi ñaan lépp ñu jëm si jàmm ñëpp si si jàmm rek waaw. ñu lay jaajëf. waaw jaajëf ko. comme ni ngeen koo gisee waa Parcelles ñoom pare nañ bu yàgg yàgg ñu ngi waaj combat bi te yaakaar nañ ni am ndam ci kaw ki nga xam ni moo di Siteu ñu ngi nii nag ci buntu kër Papa Sow di ko xaar mu génn. Ahmed Cissé indi garab gi la ngeen jàkkaar lool muy régu régu lu muy def dafay rëyal dafay guddal su awra bi tuutee. mu rëyal ko su gàttee mu guddal ko su dëngee mu jubbanti ko 100 pour cent naturel la amul effet secondaire ngir jot ci garab yi le